ko naan moom daa daal di noué avec les français daf leen bëgg a bàpp ngir ñu jàppale ko ci lu ñeel candidature am ñeneen ñi di ko sànni ay trac comme quoi que moom moo fi doon xeex Auchan ak lépp luy entreprise française tey muy tourné di daal di def seen promotion loolu yëpp ngir daal di taqal ab deram comme niñ ko tàmmee di def ngir ñenn ñi nga xam ni xamuñ na mu demee daal di njort ne Ousmane Sonko daa am ay tànk yu mu jëloon tey mu daal di soppeeku bëgg jël yeneen Ousmane Sonko mooy politicien bi gën a constant ci Sénégal depuis bi mu tàmbalee di wax ak sénégalais yi ba tey am na ñeneen itam. ay par rapport ak actualité bi mbirum Auchan nekkul loo xam ni Ousmane Sonko moo dem woo leen ne ñëw leen ma jox leen ab terrain ngeen installé fa seen entreprise tàmbali di liggéey foofee ca Ziguinchor déedéet. benn privé kenn koo xam ne moo moom ab terrain wam moo waxtaan ak waa Auchan ba jubbo daal di d'accord ngir jox leen boobule espace ngir ñu samp fa seen entreprise ñoom waa Auchan dem uti ji autorisation ci état du Sénégal maanaam nguur moo leen jox autorisation ngir ñu mën a installé wu foofee ca Ziguinchor donc laaleewul lenn ak Ousmane Sonko moom mënu ci dara c'est en dor de ses compétence li waral nag mu jël wàllum Auchan joxe ko comme exemple moom xam ne ñoo di commerçant yi nekk foofee ci Ziguinchor ne leen bëgg naa leen jàppale defaraat marché bi ñu moderniser Ziguinchor waaye day fekk itam yéen ñi nga xam ne yeneen acteur acteurs yi nekk ci biir marché bi ngeen def ci seen kéemtalaay kàttan dox ci effort yi ci daal di war bu ko defee seen marché bi nekk fuy accueillant nekk itam foo xam ne ku fa dugg si rek day am envie jënd am envi sax doxantu jël temps ngir xool yen produit moo ko daal di soxal. loolu nag set gi def cee baax ak organisation bu mucc ayib ci dem bi ak ci dikk bi mu bañ anarchique ci voie publique bi waaye itam ci biir marché bi nekkul ku mu neex lal fa nga xam ne moo lay gën a jegele say client lii moo di mbir mi kenn nag xeexul Auchan ndax ay doomi Sénégal ñoo fay liggéey am ci itam i entreprise sénégalaise yu bëri yu lëkkaloo ak ñoom ak des sénégalais yoo xam ne seeni ay tool produit bu ñu fa bay rek foofee lañ koy jaayi kon c'est une chose boo xam ne bu ñu leen ko xañee rek sénégalais yi itam lañ ko daal di xañ waaye fale ko ñu indi leeral ci li nga xam ne Ousmane Sonko daal na koy yëkkati ci ay kaddu jëmale ko ci mbirum Auchan nekkul moom ci boppam moo daal di sabab mbir mi waaye lépp ci loxoy état la daal di jaar te sax comme te Njaay ak yeneen région yu bëri ñi ngi am Auchan pourquoi pas koo bañ a mën a am loolu day wane tey dëggal encore liggéey bu am solo bi nga xam ni moom président Ousmane Sonko ma ngi koy def ca boobu lépp dëkk ndax ñaata at ñeneen ñi ngi yor boobule maire yi te mësul am benn jéego boo xam ne waa Auchan daal di nañ koy tekk foofee ca Ziguinchor kon Ousmane Sonko liggéeyam mi ngi attirer des partenaire gars yi ils ont bien compris que waa ji fu mu mënti nekk rek di fa gérer leadership bu jaar yoon moo fay daal di am andax transparence waaye zéro corruption te kum di nga def mu waree moo tax képp kuy business rek liggéey ak moom da nga siy daal di sawar moo tax yeneen maire yi ci Sénégal war nañoo mën a jël exemple ci Ousmane Sonko ci ni muy doxalee pour que ñoom itam seen ay dëkk gën a mën a jëm kanam mbokkee ndax notu AGT News abonné leen ci suñu chaîne saa su na ngeen di am ay xibaar ki jàngat yu wér te wër AGT News